ndeysaan mbokk yi lii moo fi xewoon ci arène nationale Assane Ndiaye woon ñu fi grand combat bi doxoon ci diggante double moteur bu rëbës fëgal la ci àlloon double moteur yàlla def may ko ndam combat spécial bi carrière bu bawol daan calcio bu Kër Massar maa ngi taw ak maam lees ndaanaan bu mag bi course su parcelle mbooloo maam combat bi jeex na double moteur fëgal la doolee xale moo ñëw wala lan la ausubilaahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim euh, ñoo ngi leen di nuyu yéen waa Vox dina gërëm aussi ci taxawaay bi ak jàppale bi euh, carrière bu Bawol nañ ko may xel. naan la xale la c'est un géant te mi ngi wane boppam ci gën a gàttal na ko Bawol Bawol yi ëmb comme seen pencoo bi ñu pencoo fexe ba wane loolu jéem koo jàppale jéem koo poussé ndax am na daye bi comme tafaatin am na gabari bi am na doole moom carrière. pour mbër lay doon. non bu ci waa Bawol jàppee xam naa nag bata jonn dana ci jàpp ndax xam na ko ku dégg bawal Bada Dione war cee mën a jàpp taxaw xale boobu ndax xale bu am kattan la macha allah xale bu mën bés la te yaakaar naa ne combat bi ni mu ko gisee tey ni ma ko gisee tey ak ni mu ko bëree tey ku ko jàppale jàppale champion. Double Moteur fëgg la bi fi mujj Nara Soukaas la fi bëri le 3 février fii la woon. dëgg la mu nekkoon expérience face à la jeunesse. Double Moteur doolay xale la indi. dëgg la Double Moteur bi mu bëreeg Nara Soukaas gën naa ci moo gën nekk xale moo ëpp doole Nara Soukaas te moo ciy am yàlla def suturaal ñu ba loolu am donc diggante Feugeula ak double moteur boo xoolee double moteur xam na xale bu am doole la xam na xale bu waa xandaa lu ëmb la ak waa rëbës Feugeula aussi xeex bi na ko teg ci yoon même mën nga am quatre vitesses boo dugalee benn bi booy bi daw jël ci suuf nga dugalaat deuxième bi booy bi dawaat jël ci suuf xamoon naa ne bu ñettee booy bi da koy daan ndax double moteur dafa am feem am manin boo dawee mépp sa coup xàcc ko mu jóge ci gannaaw di jëm si ci kanam day wàcc bu wàccee da lay jël bu la jëlee da lay plaqué plaqué na ko ñu ànd génn saako yi bi mu dellu si waatee bi mu ko ko defee Feugeula rëccul dëgg dëgg dëgg nag Feugeula nag bëri na. su ma la déggee Feugeula ci biir bëri da ci def erreur. non mënut boo deful erreur doo daanu ndax ndaanaan doo ngay daan ndaanaan te double moteur ndaanaan la. fu mu jëm. am nay moromam am nay naataangoom mais xale yi léegi li ñu tàmm moo baaxul. dañuy daan koo xam ne daf leen jiitu ci làmb daan na jox leen ma Ama Baldé wala jox leen ma kii suñu jot def na ko démb ma ne ko loolu teel na. yaag oh, yaag Ama du combat. Oh, xam nga combat yow yaa jaay sa bopp fëgal euh, fëgal a démérité wul double moteur aussi xale bu am public la xale bu waa xandaa luy jàppale la ku ko ëmb seex entraîneur am dana ko jàppale. jaw waaw gaa yëpp jàppale ko. poussé ko waa xandaal aussi. supporteru xandaal yëpp ñëw nañ comme combat moom moo jaay boppam wane na boppam wane na na entraîné na wane na na xala la waxoon na ko fëgg la waxoon mettre na na ko au courant ko heure bu ma la jàppee combat bi jeex te wan na ko ko waaw. kon loolu moo xewoon fii waaye Ndiaye Tine dafa mel ni bëri na ak Birame Senior ci Iba Mar Diop fils de Zallo bëri fa ak doomu jàmbur mais résultat yi ak fii fils de Zallo moo daan aussi moom moo daan ba jinne nga yaay jinne jërëjëf résultat yaay noonu jërëjëf kon ñu leen joxal rendez ñoo ngi gërëm waa Vox Arena di gërëm caméraman yi di gërëm technicien di gërëm DG ak Cheikh Omar Baax tegal foofu sa baaraam maam les course bu mag bi jërëjëf jërëjëf peace ñu ngi leen di gërëm di leen sant lii leen di indi woon fii Mar fii ci arène nationale double doomu Rebeuss mi ngi noonu am dam